rafetalal ñu ko lool ba buñ ko ko yóbbulee présentation ba baax ñaan yàlla it mu defal ñu jàmm te may ñu wér moom borom bi subhaanahu wa taala macha allah xam ngeen ni ñu ngi woon ak yéen si jotaayu tafsir bu ñu mujj am ak yéen jeexaloon nañu suratu abasa kon tey ñu war a dal saar bu bees muy suratu takwir di ida chamsu kuwirat 81e surat bi ñu dooree kaamil bi ak léegi wala ñaareelu yoonu kaamil bi ak léegi ay yi nga xamante ni nekk na ci saar bi toll na ci dix-neuf wala vingt-neuf verset maanaam ñaar fukki aaya yu teg juróom-ñeenti aaya mooy li nga xamante ni moo ëmb saar bi ñu war a jël di suratu takwir ci saaru màkka yi la kon am na ñaari sujet yoo xamante ni dina ko traité yoo xamante ni yu am importance la benn bi mooy yowmal qiyaam dina ci dikk waaye dina dikkiit nag ci alwaxyu war risaala maanaam yónni gi yàlla yónni yenent bi waaye wax yu gi ko wax yu bi wasitati jibril alayhi dina ci wax kon ñaari yooyu moom day fës ci saar bi waxi yowmal qiyaam moom la lay doorale su paree ci loolu dina ñëw ci dëggi dëggi wax yu ak risaala yónni gi yàlla yónnee waaye ki mu yónni pour mu indi yónneen tamit waaw bu mu ci ñaar yi nag dafa bokk ci lawazimul imaan waaw dafa bokk ci ponki lislaam yi ndax euh, euh, al imaanu bi bil yawmil axir xam ngeen ci ponki lislaam yi la waaye al imaanu bir rusul wa bil malaayika it ci ponk yi la te boo jëlee al waxyu wa risaala mu ngi bayna rasul wa jibril alayhi salaam mu ni kon yi bu mu ci mën a doon rek ci ponki lislaam yi la ci ponki liimaan yi la ñu baal ma mu ni saar bi buy door day doore ci wax la yowmal qiyaam ak renversement de situation yi am wala ñu koy woowee le monde à l'envers wëlbatiku bi bi univers bi di wëlbatikoo ci ni aada woowoon dooni mbiram macha allah muy ndil la ci lu ci nekk loo xamante ni am na noo ko gisee ak nu mu mel mu wax la ni dina am bis boo xamante ni dina la wan beneen melokaan bu bokkul ak yow bi nga ko xamee muy ash-shams di jant bi wala biddéew yi wala montagne yi wala géej yi wala suuf si wala asamaan si wala jur gi ci boppam wala euh, rabi àll yi macha allahu yooyu yëpp dina la ñëwal seeni mbir ak ay comportement yu yoo xam ne da leen koy gisee te doo du lii du aada ci yooyu yii mun a tuddal ñu mel nii dina waxit ci doomu aadama waaw dina wax ci doomu aadama ak lépp lu nekk ci àdduna rek dina ci wax yëngal ko nag yëngal ko foor wax ci yu doy waar ba wan la ni mbir yi daal borom bi subhanahu wa taala rekk ko yor te moo ci am sañ-sañ dinañ dollu jamono boo xamante ni li man yowma tubaddalul ardu xeyra al wa barazu lillahi alwahidi alqahar dinañ gis soppeeku yi am ci su àdduna yépp nag macha waaw nga gis mbir yi jóge ci mbir dem ci mbir di nga ko gis macha allah mu doore ko daan la ida shamsu kuwirat wa ida nujumu nkadarat wa ida aljibalu suyirat wa ida al ishaaru uttilat wa ida alwuxuushu xushirat wa ida albixaaru sujjirat wa ida annufuusu zuwijat wa ida almawuudatu su'ilat bi ayi dambin qutilat wa ida alsuxufu nushirat wa ida alsamaau kushitat wa ida aljaxiimu sucirat wa ida aljannatu udlifat alimat nafsum ma ahdarat sadaqallahu alazim dina la ñëwal foofu ci ay yooyu bu ci nekk rek mu wax la li mu la ci wax ba pare soog a indee alimat nafsum ma ahdarat loolu nag bind yu rëy nag foofu mbokk yi saar bi dina ci dikk saar bi mbokk yi dina wax dëgg dëgg wax yu mooy lan wax yu li yàlla di jox jibril alayhi salaam mu koy indil yonent bi comme ni mu ko indile woon yonent yi sa moo tax sallallahu alayhi wa sallam bi ko jibril feeñoo nam ko feeñoo sit na xadija jaaxle ci lool ndeysaan yaay ju baax jooju wala suñu maam ju baax jooju maam xadija ndeysaan dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waraqa maam Cheikh Alxaaj mu la koy wax naan la jaat li warqat taxkiima rawaahu laha di ko wax li borom këram di gis wa qaala naa muusa muusa zaki fabtasimi sa borom kër daal la muy gis mooy la Muusa doon gis muy malaaka kon nag bégal te kontaan te xam ni ki la yàlla booleel yàlla jox na ko cër bu kawe yaa laytani kuntu fiha saliman jazaan wa kuntu hayyan la dal ixraaj li naan ko ak a neexoon man waraqatum nu nawfal ma doonoon bis bi ñuy génnee sa borom kër gi fii ci Makka ndeysaan ak a neexoon mu fekkoon ma mu wér ak a neexoon mu fekk ma may dund am kàttan ba bokk ci ñu koy défendre keroog sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa tiit ba dafa ni ko awa muxrij yi ana dañ may génne man mun ko waaw waaw lii nga indi ak lii nga fas yéenee wax mission bi nga ndara yor ku ko yor ku ko mas yor ku ne xatal nañ la sa dëkk ba génne la fa waaw doo fa nekkit ci jàmm macha allah kon dina la indil wax yi indil la ki nga xamante ne mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam indil la melokaanam moom mi war a recevoir waxyu bi parce que dafa am transmission la boo xamante ni day jóge ci Jibril ñëw ci moom waaye réception yi dafay am waaye kii day transmettre kii di recevoir dina lay wax dina la wax kii transmettre mooy kan dina la wax kii recevoir it réception bi mooy kan nga xam bu baax wax ji fi mu jóge ak fi mu jëm loolu lépp dina la ko indil macha allah saat bi macha allahu dina la indil gaa ñi nga xamante ni euh, dañuy mel ni dañoo sàggan ba mel ni sax wax yu dañ ci am problème waaw ndax lan weddi gu ñu weddi ba loolu di leen dugal ci ay lëndëm yi bokkale yàlla ak gu réer gu metti goo xamante ni dina leen dal ñoom waaw waaye nag mu wax la nag li nga xamante ni moo tax wax yu boobu jóg day ñëw fekk nit ñi ci lëndamaay gu bokkaale ak yàlla lëndamaay yu réer jële leen ci yóbbu leen fan ilaa nuuril ilm wal iman yóbbu leen ci leeru xam waaye yóbbu leen ci leeru am iman moo tax xam-xam am solo am am solo yonent bi aleyhi salaatu yàlla li mu ko njëkk a wax ci alquran mooy iqra waaw loolu nag dina la dikkal ci yu mel nii moo tax dina ni la fala uqsimu bil xunnas aljawaari lkunnas wallayli ida asas walsubxi ida tanaffas innahu la qawlu rasulin karim ndeysaan dina la dikkal si loolu kooku mooy karimun ladi quwatin inda zil arshi makin mutaain thumma amin wa ma saaxibukum bi majnun waaw lu am solo la parce que aussi nit dara gënu la metti dara daru la ñu ne la yow wéru da ngaa da ngaa am problème mu xel mu sa maanaam da nga da nga mel ni ku dof yàlla nag ni wax dëgg yàlla ku toll ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak mission bu rëy bi ma ko jox su ngeen koy tuumaal naan dafa am problème mu xel mi dafa manqué dafa dof rek c'est parce que yéen comprendre gu leen kon dina dikk ci loolu saar bi mbokk yi <coughs> buy jeexal dina ñëw ci neenal li nga xamante ni moom la yéefar yi jàppoon ci alquran ju tedd ji yàlla xamal leen ni alquran day mawidatun min allahi taala li ibadihi alquran genn màgg goo xamante ni dafa jóge ci borom bi subhanahu wa taala jëm ci jaamam yi pour ñu xam ko mu leen fa ayna tadhabuun in huwa illa dikrun lil aalamin liman shaa minkum an yastaqim وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم mbokk yi lii moo dara ëmb saar bii ñu fas yéene dugg di suratu takwir borom bi subhanahu wa taala door ko rek ni bismillahi rahmani rahim ida shamsu kuwirat yàlla nee na ay bis boobu benn bis a ngi ci kanam mu ngi ñëw bis la boo xamante ni jant bii ngeen di gis leeraay gi mu àndal yépp moom jant bi day mel ni lu ñu taxañ mel ni lu ñu nëbb ak leeram ba dootul am ida shamsu kuwirat waaw li ngay gisee boroom kaala gi kaala bopp bi nga gis mu taxañ kaa kaala gi noonu ci kanam gi nee na bis dina ñëw day mel ni jant bi dañu koy taxañ ba pare nëbb ak leeram ba ak lëndëm lay génne waaye dootoo gisul leer nee na bis boobu ngi ñëw ngi ñëw de ñu far leeru jant bi nee bis boobu bu ñëwee ak ni jant mën a niite ni mu mën a leerale moom jant bi bis a ngi ñëw bëccëgu ndare kàmm la ko yàlla di def loolu waaw xam nga soo waxee loolu ki nga xamante ni ci guddi la ne du comprendre daan moom jant bi lu mu aay aay bu guddi jotee day dem waaye nag yàlla ci bëccëg nga xam ne moom wolof sax day wax ni ngay dégg ndeysaan gaa yi naan la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa mel ni jant dafa mel ni weer waaw kenn ku ne mën nga xool te doo déranger sa morom kenn ku ne mën nga di xool te doo déranger sa morom mu ni kon jant boobu de bisa ngi ñëw dañ koy taxañ waaw mu am ak lëndëm waaye dootoo ji gis ak leer leer ga mel ni dañ koo far waaw nee na bu bis boobu jotee nga ne am ah, mu ni wa idan nujumun kadarat ba tey de du ma yem du yàlla du yem ci jant bi de mu ni biddéew yi sax da leen di bàyyi ñuy rot ci seen place yi ñu saxoo woon fa ñu newoon dañu fay rote di tasaaroo tasaaroo de gauche à nga gis biddéew yi Pape Samba di wàcc yi di jaar nii yi di jaar nee mu ni bu loolu amee ah nit ñi mel ni tiit nañ mu ni pare gu ma de wa idal jibaalu suyyirat yàlla nee na bis bu ma demee ba ngeen di gis montagne yi ma koy doxloo montagne yi di dox di wuy ji di wuy ji borom montagne ni mu toll ni déjj fa mu ni déjj yàlla ni ko doxal mu dox ndax yàlla ku mu ni doxal nga dox yàlla ku mu ni doxal nga dox ku mu ni waxal nga wax waaye ku mu ni toogal dootoo demati moom borom bi subhanahu wa mu ni kon waydal jibaalu suyarat ñu demee ndeysaan ba yëngal montagnes yi montagnes yi jóge fi ñu nekkoon di dox dem ba si yàgg mel ni lu dugg ci ngelaw li mel ni lu dugg ci jaww ji ba mu gi day mel ni benn benn poussière rek waaw da ngay gis euh, we jant bi walla montagnes yi ni ñuy doxee dañuy jékki-jékki rek tasaaroo ak suuf si léegi da nga koy gis rek mu mel ni pënd buy kii poussière rek ngay gis waaye booba moom fa mu saxoon nekk fa moom yàlla yëkkatee na ko fa nee na bu loola amee ah ngeen xam ne mbir a ngi am de mu ni wa ida al ishaaru uttilat waaw kay nee na bisa ngi ñëw boo xamante ni day al ishaar mooy gilleem goo xamante ni bii daf ko def jamu rek arab yi bu ñu masaana am gilleem pap gilleem gi ëmb ba am fukki weer alal ju bari la ci ñoom boo gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko bi mu bi mu demee te gaa yi bëgg bëgg ku ko jàpp dañu ni képp ku ko jàpp indil ñu ko moo xam danga ko indi muy dund wala mu dee dinañ la jox téeméeri gilleem kooku alal jooju mënuñu koo xayma ci jamono yooyu moo tax soo bëggee alal danga nga naan kii man naa naa ci rey sama bopp rek ko parce que su ma xësee ba jàpp dee naa dund na yëpp moom fi laa jaare sama mbir baax moo tax Suraqatum nu Malikin bi mu déggee loolu moom dafa jóg. nee nañ dem na ba jege yonent bi fekk yonent bi ngi dem mook Abu Bakrin di gàddaay ndeysaan bi mu ñëwee yonent bi jox ndigal ndax ci li ko boroomam defoon dox defaloon mun ko suuf si gilleem gii nga xam ni moom la suraaqa war wala fas wi mu war wala wannal ma tànki fas wi war na ko mënatu la dem mu ñaan yonent bi njekk lay boo ma bàyyee ma dem yonent bi bàyyi ko mu génnaat ak fasam waaye xel mi demaat ci sans gilleem mais non loolu dafa bari du ma ko bàyyi toppati yonent bi bi yoon ñu wan na tànku fas wi ba jëlaale fas wi lu bari mu ñaanati njekk yonent bi may ko ñetteel bi dañ koo jël dañu ko jël moom moom sax ñu wa suuf si wannaale ko mu waatal yonent bi ni ko wallaay soo ma bàyyee dootuma la topp waaw waaw jamais deux cent trois waaye boo yëggee trois rek la ba bu yëggee trois troisième fois ba si la wàññee ko bàyyi yonent bi ni ko non seulement dama lay bàyyi nga dem waaye munu ma laa bàyyi nga dem sax te tuubu ma de ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah li tax ma xam ne yow yàlla la yónni mooy man sama yéene mooy jàpp la indi su ma am amul pexe nga ñëw it su ma la mënoon a rey dama lay rey loolu laa yéene woon yow nga jekku ma baal ma al afu inda al maqdira loolooy wane ni yow borom cër nga yow sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan si la wàññeekoo ñëw ci waa Quraysh ndeysaan aba jeexlin naan ko yow noo mu jéeg waa ji am naan ko ah aba aba jeexlin wallahi law kunta shahidan su fekkoonte ni gis nga li ma gis soo fekke woon li ma fekke nga xam ni waa ji du moroomu kenn sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw kii teraanga ji ma defar ak baal gi ma baal di dama lay teel a ni man mii de mi demoon di yéefar di ko dàqi bi may waññeeku jullit bu dellu siwaat ci yéen la ndax kii hudan kawsarun qad qassahu llahu kawsara kii daal muy ak njub kii mooy dexu kawsar ga moom la yàlla jagleel dex ka ca àjjana tudde ko euh, alkawsar ndeysaan tagg ko tagg yu yooyu moom sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon lu ma indee wax ji mooy dama doon wax rek gilleem mu ne bu ñu demee ba gilleem gu am fukki weer arab yi di ko bàyyi nii di ko bàyyi duñ ko wutal ku ko sàmm duñ ko wutal dara te bu seen gilleem masaana tollu foofu c'est pas possible dañ ko daan takk di ko bàyyi xel du ñu bëgg kenn du liggéey du def dara ndax lan doom yi mu yi ñuy xaar ci moom yi xaar ci moom mbokk yi su ma la doon misaal léegi mooy bun gis nga gis nga boo demee ci grande surface yi foo dem yaa ngi fa fekk vigile yi de boo demee ci banque yi Pape Samba yaa ngi fekk vigile yi de soo ñëwee buntu deux s vigile yaa ngi fi de demal ca feneen demal feneen fépp ay vigile a ngi fi yoo xam ne bala ngaa dugg lu leer lay duggal. bis bu ñëwoon rek ñu jékki-jékki grande surface kenn ñu ubbi yëpp bàyyi noonu kenn talu ko banque yi ak ni banque baree ñu ubbi banque yëpp kenn gardé wu ko kenn xoolu ko kenn deful dara loolu bis bu garaaw la ni bu garaaw la nga ñëw ci télévision yi télévision boo ñëw doo fa fekk kenn xam ne am nga mën ngaa dugg ba ca biir dem ci régie ba dem fu la neex wax lu la neex kenn du la tal kenn du la def dara mooy am na lu garaaw lu war a xew moo tax mun la wa idal ishaaru uttilat bu ñu demee ba gilleem gu ëmb ba am ëmb fukki weer boobu yàlla xam ni mu doonee teraanga arab mu ni ñu boyal leen bàyyi leen rek kenn du leen garde kenn du leen toppatoo kenn du leen def dara ndax tiit hmm. ñu xam ne am na lu nar a xew de mu ni wa idal wuxuushu xushirat bu ñu demee ba njaay àll yi ndeysaan ci yeeg lépp rek lépp lu gaynde yeeg xar yeeg nag yeeg bëy ñépp ñu pang leen dajale leen ci benn dajale dajale leen ci benn rendez-vous téye ndoo leen fa ñoom ñépp hmm? nee na bu loolu amee am na luy xew de ñu mel ne àll bi rek yenn bu lakk gu metti amee ci àll bi da ngay gis jur gi ci mucc dañuy dajaloo taxaw benn place rek fenn rek la ñuy taxaw jaaxle waaw dañuy lool nit ñi dañuy toll moment yoo xam nit loolu day am saa yi situation demee noo xam ni doo am lu dul say bët pour jooy waaye benn pexe doo ko am mu ne bu ñu demee ba dajale leen pang leen mu ne way dal bihaaru sujjirat ay Pape Samba xam nga ni dex géej géej tey li ko xamee ndox la ndox liñ ko xamee mooy bu safara amee ñu uti ndox sotti ko ci safara si waaye nee na bu ñu demee ba géej yooyu ñu taal ko mu jékki-jékki fees dell mel ni mel ni safara safara fay ne au lieu que nga fekk fa ndoxum géej waaye nga ñëw fekk muy safara suy tàkk di jóg mu ne waytal bi xaaru sujjirat nee na bu ñu demee ba taal géej gi taal ko hmm? nee na am na luy war a xew de ba léegi waxagul nag mu ne waytal waytal nufuusu zuwijat jat bu ñu demee ba boole bakkan yi maanaam ñi baax ñëpp ñu boole leen tabari jariru tabari nee na mooy kenn ku si nekk ñi baax ñu boole leen ñi bonit ñu boole leen ñi baax ñu boole leen jëme leen àjjana ñi bon ñu boole leen jëme leen safara kenn ku ne ak nga war a àndal rek loolu bis booba euh, kenn ku ne ñu boole la ak ki nga war a àndal ñi baax ànd ñi bon ànd mu ni bu loolu amee dan na fa mu ni waysal mawudatu su ilat bu ñu demee ba xale yi nga xam ni dañu judd woon ñu gas bàmmeel ñu gas ba mu xóot yenn saa yi sax dañuy dund waaye seen bàyyi suur leen ndax bañ gàcce arab yi noonu lan daan def wa ida bushira ahaduhum bil untha dalla wajhu muswaddan wa huwa kadim yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bi ayumsikuhu ala huunin am yadussuhu fi turaab ala saa ma yaxkumuun waaw bon na de yàlla nee na kuñ ci masaan ni sa jabar am na doom da ngay laaj lu mu am su nee la jigéen nga ne àdduna tukki na sama jabar toroxal na ma gàcceel na ma mais nu may def ak jigéen bi dama ko fi bàyyi mu dund doon gàcce ci man wa si ak xel mi ni ko noono kii ëpp naa bàyyi mu gas ba mu xóot suul ko noonu lan daan def fekk di seen doom yi ñu daan suul dara dalu leen feebaruñu deewuñu deewaanuñu waaye nee nañ téye doom bu jigéen gàcce la ñu jël leen suul mu ne nag bis booba yàlla day dekkel almawudatu ñooñu ñu suuloon yépp laaj leen su ilal mu laaj leen waaye yéen bi ay dan bin xutilat yéen ban bàkkaar ngeen defoon ba taxoon ñu rey leen rey gi suul gi ñu leen suuloon yàlla dañ koy laaj ni yéen ban bàkkaar ngeen defoon ba tax ñu war leen suul suul gii ñu leen suul loolu laa bëgg a xam waaw idal mawudatu suilat bi ayyi dhanbin qutilat ñu laaj leen ko ah laaju gàcce la ci ñi leen ko defoon loolu mooy wane ni eh, duñu wax lu dul ah ñun de defuñu dara defuñu dara waaw demandé woon sax neetar ci ñoom waaye yaa ñu jaarale woon ci ñoom ñoom xamuñu teraanga ji nga leen defaloon ñu jël ñu suul yàlla ni dégg ngeen ah yéen de yéen suuloon ñii ñii ngeen suuloon nag dama defoon dafa am lu ñu defoon ba tax ngeen suul leen laaj naa leen lan mooy seen bàkkaar yéen lan ban péché ngeen def ba taxoon ñu suul leen rey leen re rey gu ñaaw googu waaye nee na ñu defu ñoon dara bi bi ay yidan benn xutilat ñu ni déedéet kon kii laaj la boo xamante ji taw waji tawbiq day maanaam day mel ni ku yeddaale ñi leen reyoon di leen di leen di leen tiiñal loolu lay lool lool loolu lay jëriñ mu ni way tax suxufu nushirat mu ni su ñu demee ba séddale feuille tadakkaru tataayiru suxufu l amal imma ila al yamini wa imma ila chimal ndeysaan waxkat ba nee na na ngeen fàttaliku bés bi nga xamante ni dañuy séddale feuille yu jëf yi imma nga téye ko sa ndeyjoor amma man utiya kitaabahu bi yamini fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitaabahu waraa dahri فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا nee na bis boobu nga xamante ni dañuy séddale feuille yi feuille jëf yi waaw pour war a yi kenn ku nañu jox la sa feuille téyel sa jëfa ngoog vérifiel kenn ñu ko vérifiel kenn ku nañu wax mu ni bis boobaa ngi ñëw de wa iza suhufu nushirat mu ni wa iza samaa'u kushitat waaw bu ñu demee ba asamaan si mel ni dañu koy fees comme ni ñuy jëlee der bi di ko dindi ci ci ci ci jur bi maanaam xar mi ñu ren bi ñu ren di wala bëy bi wala nag bi fees ko nga gis ni ñuy xëccee der bi dindi ko nee na bisa ngi ñëw asamaan si noonu la ko yàlla def mel ni da koo dogat ay dogat di ko mel ni ay pièces yu ñu monté woon ñu koy démonté nee na bu loolu amee mu ni waysal jaximu soirat bu ñu demee ba safara ñu gën ko xam gën ko taal ba mu gën a safara sa gën a jóg ca kaw nga koy xool gis ni safara si tàkk-tàkk yi gën naa yëkkatiku nee na bu bis boobu ñëwee nga tiit lool ci wax ji mu ne wa idal jannatu uzlifat mu ne wa idal jannatu uzlifat nee na bu ñu demee ba àjjana ñu xëcc ko jegeel ko gaa yi comme safara niñ koy taalee mu gën a yëkkatiku nga gis safara si ni muy xambe ñi nga xamante ne ñoo doon weddi yàlla nee ca jamono boobu ñu indi àjjana jegeel ko gaa yi ragal yàlla waslifatil jannatu lil muttaqina xayra baid yàlla nee na dañuy xëcc àjjana jegeel ko lool gaa yi ñi nga xamante ni dañoo gëmoon yàlla mu ne du leen sori xayra baid du leen sori déedéet mu ni suñu demee nag ba loolu am wa idal jannatu uslifat ha yàllaa ngi soog a tontu nag gis bi muy wax ba léegi da doon wax rek waaye tontoogul li mu doon bëgg a wax mu ngi soog a nag war a indi léegi nag jawaab bi li jaar ci isa shamsu kuwirat boobu ba léegi ba bi may yegsee wa idal jannatu uzlifat mu ni lii lépp nag alimat nafsum ma ahdarat nee na bakkan bu ne dina xam lan la teewal ca bis booba allahu akbar na bakkan bu ne dina xam lan la teewal ca bis booba bu dee lu baax mu xam su dee safaan mu xam xam ni nii la demee mbokk yi yowmal qiyaama seen tafsir jeexul de waaye quatorzième verset ci seen saar kon dañuy teg foofu suñu baaraam bu ñëwee sof li ñu sosoon mu continuer di des ci saar bi waaye daal bi mu limee yëpp nee na bu yëpp amee ida shamsu kuwirat ba wa idal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat bakkan bu ne la mu fa indi dina ko xam su dee lu baax la indi dina ko xam gis ni lu baax li mu defoon a ngi bu dee lu bon la indi woon it dina ko am xam gis ni lu bon lii la indi woon macha allah su ñëwee nag mu soog a commencé nag beneen wax ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ak ci yeneen i mbir yu jëm ci yawmal qiyaama yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri lmuslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafuuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh